mbokki internet yi saxoo di seetaan NC TV Sénégal daleen ak jàmm ci xibaar xibaar li ci gën a fës gaal bu suux fële ca Kafountine lu mat fukk ak ñeenti doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan jamono ji ñuy wax a yéen gendarmerie yi ñi ngi wéyal li nga xam ne mooy seet bi ngir xool ba xam moori dina ëpp loolu wala ñi nga xamante ni nag ñoo jiite woon wàllu dawal gaal googu nag gendarmerie yi ñi ngi leen dugal jamono pour teg leen loxo ba tey ci wàllum xibaar fële ca Ziguinchor atab Guy Marius Sagna ma ngay wéy ca tribunal mi ngi saaku ñu tëj kii di Guy Marius Sagna at yoo xam ne dafay tëdd juróom benn weer yi loolu la procureur bi sàkk waaye jamono ji ñu wax ak yéen siis bi dogalagul loolu ba tey ci wàllu xibaar kii di Ahmed Aidara nekk maire de la ville bu Guédiawaye moom nag ginnaaw bu ñu ko jàppee woon ak kii di Déthié Fall nekkee seen manifestation bi doon amal la 17 bi jàll can bàyyi woon leen ni ki démb Ahmed Aidara nag doon na jàkkaarloo ak taskati xibaar ni tey ji di xam le ni moom ma nga fam nekkoon ba léegi il faut ñu jàkkaarloo ak nguuru léegi suba fépp ci régions yi préfet yi dañoo gàntal manifestation yooyu waaye fii ci Dakar ba jamono ji ñuy wax ak yéen préfet bu Dakar waxagul dara waaye ñoom waaye yeewi askan wi jàpp nañ ni ñoom seen manifestation yi dinañ ko amal ni ki suba comme ni ko Ousmane Sonko waxee woon manifestation yi dinañ ko amal Macky Sall dina ko jàpp wala lu manti am moom seen manifestation yi dinañ ko amal ni ki suba waaye ba jamono ji ñuy wax ak yéen préfet bu Dakar bi waxagul lu si jëm